tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo te mooy dundal weeru koor ndax waajal weeru koor ci lañu nekkoon fan yi waaye suñ borom defal nañu tawfiq ba gan gi agsi na ci jàmm kon ma yi lu ci jàppandi rek ci biir weeru koor wi ñu ngi koy tuddee dundal weeru koor di ci ndokkeel jullit ñi bu baax a baax ndax nag di leen ci jéggal waaye di leen ci jéggulu bu baax àq yi nga xam ne nii mën naa dox sunu diggante muy lu nu yëg mbaa lu nu yëgul ngir wax dafa doon nattu suñ borom waaye képp koo xam ne ni mas ngaa dégg wala nga gis wala ñu def la loo xam ne nii rek metti na la euh, wallahi ñoo ngi la ko jéggalu ndax yëguñu ko wala yéene wuñ ko itam ndax li ñu ëmbal sunu bopp rek wala lu ko raw lañu leen ëmbal yéen ñëpp di ci sàkk yi ñaan bu baax a baax yaakaar nañ ci seen ñaan bu baax waaye tamit di leen ci ñaanal yéen tamit bu baax di ci beral loxo nag waa daara xikmatul mi di leen ci ndokkeel bu baax ndax ñoom kat sunuy partenaire lañ muy daara ja ca eh, whatsapp bi ak ji ci facebook bi ak ji ci youtube bi ak mboolem fu xikma bi àgg ci réseaux sociaux yi rek ñoo ngi leen di ndokkeel rawatina message yi ñuy jot yoo xam ne ni message yi eh, baalante àq la ak nuyoo ak siyaara te mënuñoo tontu yëpp kon ñoo ngi koy jaar ci xikma bi fu sunu kàddu àgg rek am nañ yéene yi kenn ku nekk ci yéen ñu jox ko loxo euh, ndokkeel ko baalu ko àq baal ko ak ñaanal ko te sàkku it ci moom ñaan euh, ñu fas leen yéen andil ma bu am solo boo xam ne mu ngi jóge ci sangub sang yi seydina muhammad sallallahu alayhi wa mu waxoon ko ci guddi gi njëkk ci chahru ramadan muy guddi gi biig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dafa wax ci addis boo xam ne nii abi Hurayra moo ko nettali mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na guddi gi njëkk ci weeru koor muy guddi biig gi nee na bu bu weeru koor duggee guddi gu njëkk ga sunu borom day yónni am malaayika mu ñëw ba jege si daal di yéene ci kaw dal ne yow mi nga xam ne nii kat sàkku tayaabo ak wut aw yiw ak màng aw yiw rek moo la taxoon a jóg jegesil Euh, jege bu baax a baax a baax ndax waxtu waxtu promotion kat jot na waxtu woo xam ne nii kat ku def benn la ngay am kenn xamu ko ku dul suñu borom tabaraka wa taala kon jege te farlu ci jaamu yàlla bu baax a baax a baax a baax waaye yow mi nga xam ne nii nag danga jëmoon kat ci naka sudut noonu wala nga daan def bàkkaar wala nga daan def ay njombe nee na gàttalal taxawal nag taxaw jot na kat te nga jublu suñu borom tabaraka wa taala ci tuubal ko ndax waxtu wi wi suñu borom di gaaw a jéggalee agsi na kon ku ci nekkoon ci naka surut noonu ak lu mu mën di doon rek walbatikul nga tàllal say loxo suñu borom tabaraka wa taala te jéggaloo ko mu daal lay jéggal ndax neenakat guddi gu njëkk gi ci weeru koor nee na suñu borom ci lay goreele ñu bari ci ñi nga xam ne sawara yayoon na leen daal leen di setal ci safara yóbbu leen àjjana waaye naka noonu itam gépp guddi ci biir shahru ramadan suñ borom dana tibb ci lu bari ci ñu waroon dem safara goreel leen yóbbu leen àjjana te tibbub suñ borom de euh, du tuuti moo tax mu ne yéen jullit ñi na ngeen bu baax a baax bokk ñi nga xam ne suñu borom da di goreel ci safara euh, yóbbu leen aljanna xadis bi moo nekk nii an abi hurayratin radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida kaana awalu laylatin min chahri ramadana yunaadi munaadin yaa baaxi lxayri aqbil wa yaa baaxi charri aqsir walillahi otaqa min annaar wa dalika kullu layla rawahu tirmisi kon nag loo xam ne nii kat boo defee tuuti am lu bari ko ci yàlla boole war nga farlu mi sëñ bay jaxate wax rek nee na di saswu tuuti wu làmboo añ bu rëy bu rafet ku muñ te bay ko ñu jox lab añ musal la ci ay kon nañ muñ rek waay te nangoo bay bu baax a baax a baax a baax te sellal suñuy xol setal suñuy ndab bam set wicc te kenn ku nekk rek bu mu jàppal menn mbokkum jullitam eh, eh, àq bum ko dencal dara ci ab xolam lu dul aw yiw lim dencal boppam ndax loolu kat eh, mooy gën a gaaw a maye aw yiw ci weeru koor wi